Yeay, guys. Puyol mu ngi yedd kookee di Vinicius ancien joueur bu Barça di Puyol mu ngi koy recadré di ko wax ay kàddu yoo xam ne nii ci jamono ji ni muy di like di commenté ñëw ci Vinicius moom mi nga xam ne moo nekkoon ancien défenseur bu Barça ancien capitaine le gars bi nga xam ne vraiment il était exceptionnel ñëw na nag ci jamono ji Vinicius ni muy doxalee ci terrain yi nee na Vinicius la bu exceptionnel joueur la boo xam ne dafay débloquer situation yi à tout moment il est talentueux mën na football te it euh, normalement fépp fu mu mën a dem dañ ko war a euh, mën a jox gëdd euh, nag talent bi ne ci moom waaye bu ko amoon lu mu koy conseiller bu ko jege woon doonoon collègue am la mu koy wax lenn la rek mooy que lan mu changer comportement am ci ni muy doxalee ci biir terrain bi nee na joueurs yi bëri nañ fi mais gis nañ ne Vinicius terrain bu mu dem coow li bëri ci moom et Euh, bu changé woon comportement am am yu bëri mu ngi koy sëgg di bàyyi muy sedd continuer nekk ci carrière professionnelle am di football di wane fulla ak fayda dina gën a mën a am considération dina gën a mën a am reconnaissance envers les publics gis nañ fi joueur bu nekk toj def fulla ak fayda doon joueur adverse mais public bu mu dem dañ ko applaudir rek ñoom seen loolu nag Vinicius mën na ko war a mën a am selon Puyol nee na Vini daal bu changé woon comportement am gën a correct ci biir terrain bi wane fulla ak fayda non mais mën na am lu bëree bëri bëri ci football mais tant que mu ngi muy def nii public bu mu mënti dem dañ ko indil problème et tout te it moom yéene ko daal loo xam ne nii bu toogoon ak moom en tant que collègue loolu daal loo koy conseil mu gën a góorgóorlu ci loolu bu baax a baax a baax mu doon loo xam ne nii euh, Puyol génn na ko ma leen xaar ci commentaire yi gars yi ba xam ànd ngeen ci ou ngeen bindal ma ko ci commentaire yi malgré moom rival FC Barcelone la rival FC Real de Madrid la mais dafa génn wax li mu ci Coki de Vinicius pour mu avancer et loolu laa la Puyol génn wax gars loolu moo nekkoon vidéo bi leen xaar ci commentaire nan ngeen ko gisee képp koo xam ne abonné goo suma chaîne YouTube duggal suma bio nga bës logo YouTube mu yóbbu la YouTube bi nga abonné activé cloche ci seetaan vidéo ba mu jeex ba beneen yoon ci yeneen sa liggéey bi na ok continue ko nga da ngay réfléchir xam nga doo wax naka sudul noonu j'aime bien merci à toi avec mon bro. la quoi ñëw far. avec mais bëgg nañ ci waa. la nga wax.

الحمد لله لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لك الرحيم كانوا من آياتنا عجبا استوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على أبدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن kontaan moom seen gars yi dañu kontaan vraiment loolu mooy leen bu baax a baax si yaatu macha allah.